salaamaaleykum amis et fidèles internautes merci beaucoup yéen yi nga xamante ni yéen ñuy bàyyi xel à travers Dakar Buzz bienvenue dalati leen ak jàmm tey nag euh, maa ngi toog ak euh, sama frère koo xamante ni euh, bi may ak moom téléphone sax xaa yaakaaruma woon ni moom la parce que dafa dafa dafa màgg léegi <laughs> voix bi changé mm. euh, ñu bokkoon école euh, bokk nañ classe moom ak ñoom Latsar euh, il se nomme tout simplement Cheikh Diaw Cheikh maa ngi lay ziar bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal jàmm. maa ngi dolli ziar Abdou. di la mm-hmm. jaajëfal bu baax ci invitation bi. di mm-hmm. jaajëfal téléspectateurs yeeg téléspectatrices yi. Mm-hmm. ah di kontaan bu baax. di ñëw file ci Dakar ba. macha allah mm. euh, merci euh, Cheikh bala ñoo commencé waxtaan bi est-ce que mën nga ñu defal en résumé qui est Cheikh Diaw. ah qui est Cheikh Diaw ba Cheikh jaw dafa doomu Sénégal la. nekk fële fi laa jàngee <laughs> comme mësoon mm-hmm. nañu fekk école. Mm-hmm. Ah, bi ma amee bac ba pare ci laa dem Tunisie. Mm-hmm. def prépa MPSI maths physique sciences de l' ingénieur. et informatique. Euh, juge foofu dem fële ca Canada xaw naa fa yàgg nag. ok euh, fa laa amee fa laa nekkee à l'université de Chicoutimi ensuite à l'ITA institut de technologie agroalimentaire. Mhm. Euh, je def naa tamit ay cours yoo xam ne en ligne pour mën a am une licence en gestion d'entreprise numérique. surtout donc le développement de logiciels et tout ça. j'ai aussi un équivalent. Euh, puisque les diplômes nuroowul mhm. euh, donc euh, en en agronomie donc mhm. un équivalent d'un master mhm. et j'ai eu u un bac ici en sciences expérimentales alors loolu daal ci laay ci lay yëngu mais ci laa liggéey tamit ci dix année yi nga xam ni moo weesu et aussi damay def beaucoup entrepreneuriat voilà loolu daal ci laay yëngu ci loolu ci loolu nga yëngatu actuellement <laughs> voilà merci beaucoup loolu daf ci baax euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan à travers mm. Dakar Buzz euh, ñu mm. xam loolu euh, mm. mais ci document yi nga xamante ni jot naa ko mm-hmm. maa ngi gis ñu ni spécialiste en procédé et qualité d'aliments des aliments voilà mm-hmm. donc ci foofu laay waxee donc fii nii d'ailleurs sax loolu moom indi Sénégal ok damay liggéey ak la coopération canadienne ñoom ñoo ma indi Sénégal pour un mandat de quatre mois. Mhm. actuellement loolu moo tax sax sama teewaay fii ci Sénégal. pour accompagner plateforme des organisations professionnelles de l'agroalimentaire du Sénégal. Mhm. ñu koy wax POPAS donc euh, euh, mooy partenaire u alors euh, en fait parce que je suis diplômé de l'Institut de technologie agroalimentaire fait que que ça soit les procédés industriels les normes internationales pour mm -hmm. les aider à exporter le produit à le mettre en valeur la mm -hmm. microbiologie mhm. et pas mal de casquette dans procédés et aliments. Okay. Donc, loolu moo tax <laughs> tout spécialiste c'est un peu gros mais je pense que sama domaine d'activité la. sa domaine d'activité la waaw jaww nga sant c'est normal <laughs> ñu wax ci wàllum lekk yooyu noonu. Mm. nga am nga am ci part de responsabilité. mais euh, nga nekkoon fi nga xamante ni moo di Canada yàlla suñu borom def nga ñëw Sénégal euh, pour un mandat de quatre mois comme ni nga ko waxee tout à l'heure mm-hmm. mais nga bokk ci ñi nga xamante ni euh, dañ doon teewal foofu ca diwaanu Canada. Mm-hmm. Pastef mm-hmm. xeex bi metti woon lool. lool ngeen nekkoon ñoo xamante ni yéen a ngi ci doon bay seen waar mhm. euh, tey jii suñu borom def ngeen jël nguur gi mhm. euh, naka ngeen doon dundee euh, xoqotal bi nga xamante ni moom lañ doon teg sénégalais yi fii ci diwaanu Sénégal Sénégal mhm. ah ben de loolu nag dañ koy daf metti war na ci ñun parce que boo nekkee sax Sénégal léeg-léeg da nga naan ah, doo xam li xew dëgg parce da da ngay a sax tiit dans la mesure où gis nañ ñuy jàpp suñu ay rakk suñu ay jarbaat suñu ay doom. Mhm. suñuy yaay mhm. suñuy bàyyi di leen ñi ñu leen di xoqatal ñii ñu leen di rey. Mhm. donc loolu nekkoon na loo xam ne ñun diaspora bi. Euh, naqarul nañ ko. Euh, tiisoon na itam si ñun bu baax a baax a baax a baax a baax. loolu moo tax tamit moo ñu gën a yokk courage ñu wéyal xeex bi ndax ñun euh, def nañ ci lu bare bare ci ci soutien ci ñi nga xam ni. ñoo doon mm, amal xeex bi mhm. waaye itam euh, di di di di sympathiser mhm. ak euh, aussi di continuer di dérouler le programme de Pastef les Patriotes mhm. alors euh, donc programme boobu ñun def nañ ci ay live yu bare bare bare ci réseau sociaux yi sensibiliser nañ bu bañ ko commencé sax du du du tey 2019 traduire nañ programme bi en wolof Euh, avant loolu doon nañ def ay live di dénoncer yenn injustice yi di wax ci yenn rapport yi euh, donc contribuer nañ ci daal bu baax a baax pour yee taal xelu sénégalais yi comme ni ko Ousmane Sonko le le premier ministre Euh, di ko doon ko defee. donc mu am ñeneen ñoo xam tamit noonu lañ ko doon defee. ok mais ci diwaanu Canada boobu mm-hmm. nga nekkoon est-ce que amoo leen foon ay jafe-jafe yu leen doon euh, maanaam bundu xatal di leen mm-hmm. torturer wala di leen wax wax ju ñaaw. waaw Canada nag euh, réewum justice la. Mm-hmm. bokkul ak Sénégal moo tax léeg-léeg bu ñu nekkee foofu dañuy am yéene bu baax a baax su liñ lu baax la ci réew moomu. mu ñu amal ko ci dëkk bi. donc. Euh, du ñàkk nag léeg-léeg nga nekk ci réseaux sociaux yi ñu yónnee la ay saaga wala ay menaces. Mhm. wala ñu signale say compte wala ñu jiima def yenn yoo xamante ni am na lu bare bari mënuma ko sax expliquer victimiser wu wala ñu yàq sa alal fii ci Sénégal. Mhm. yooyu du ci ñàkk boo fesee tuuti rek euh, comme dañu nekkoon ci réew moo xam ne amul justice donc yooyu moom dañ ko subir lu bare bari mhm. mais. Euh, duñ ci détaillé bu baax a baax parce que day nuroog euh, victimisé wu te loolu ñun dañ koy dañ bëgguñu ko daal. Mm-hmm. Euh, mais quand metti woon na mais quand même def nañ ci liñ ci mën. ñoo ëppoon jàmm ñu nekkoon Canada ñu nekkoon Sénégal ñu nekkoon Sénégal noonu laa ko mën a waxee. ok mm. euh, mais y' a beaucoup de morts yi nga xamante ni am na ci euh, événement yi nga xamante ni moo fi euh, jot a mm-hmm. peut-être bi us ki nga xamante ni moo di président Diomaye Faye bi mu toogee ak léegi yàggul. Mm-hmm. mais sénégalais yu bare ngi xaar justice ci wàllu victime yooyu nga xamante ni am nañ ko ci manifestation yi. Mm-hmm. est-ce que teelul pour ñu régler compte yooyu wala waaw en fait justice moom. du am teel ak naaj. Mhm. justice moom heure boo xamante ni toll nañ ci rek dañ ko war a def. Mhm. parce que du règlement de compte rendre justice du du trop tard plutôt même lu dee la war a def la parce que bu fekkee ni dafa ñàkk bakkanam wala muy alalam yàqu ci. Mhm. wala na leneen leen loolu dañ ko war a leeral ba mu leer naa ñi parce que am réew bu fekkee amul justice nit ñi amuñu yaakaar du yomba defar trop trop moo tax dara teelu ci man dama jàpp ne euh, bu fekkoon ci ci réew mu. Euh, jaar yoon lañ nekk kon ki ñu fi nekk sax di wax waxi lii maanaam ca ba mu amee. Mhm. lañ ko lañ doon àttee ñi ñu war a àttee ñi ñu war a teg loxo ñu teg leen loxo. Mhm. ñi ñu ci war a teg ay daan ñu teg leen ci ay daan. Mhm. loolu moo loolu mooy yoon donc man gis naa ni justice dafa dañ ko war a bàyyi mu def liggéeyam temps bi nag kenn du ko définir kenn du ni ah euh, da ngeen war a gaaw def lii loolu justice mën na moom c'est moom mooy définir temps wu boppam donc man jàpp naa ni daal rafetlu naa <laughs> vraiment ñu. ku nekk responsabilité bi mu ci am ñu situé ko. ok euh, ñu génn tuuti euh, politique mais ñu ñëw ci sa si sa parcours. Euh, mm. parce que fondateur numérique. Mm. fondateur d' Afrique numérique. Inc waay ouais. euh, cofondateur du du GIE. jàpp si mm-hmm. cofondateur de l'OB L'OBNL l'OBNL voilà mm. yooyu domaine yëpp nga bëgg ko nga bëgg cee yëngu tamit Cheikh yow est-ce que doyoo waar Cheikh. du doy waar sax xam nga ñun dañu nekk jeune. Mm-hmm. jàpp ne. d'ailleurs dañ koy wax jeune Sénégal yëpp que fii yaa ngi am xel. Mhm. di am wér. Mhm. di am doole dara jomb la. dëgg la donc loolu vraiment dañ ci insister bu baax a baax a baax. Mhm. ñu jàngee ba pare gis ni ñun mën nañoo amal suñu réew njëriñ mais mën nañ ko amal tamit réew mi ngi nekk. donc ci lañ yëngu ci lu bëree bëri parce que yooyu yëpp ça tourne autour de l'entrepreneuriat. maanaam fexee jëmmal euh, ay projet ba ay nit di ci jëriñu. surtout jeune bi ñu nekk. que lu ñu def rek dañuy bëgg ñu reproduire ko dañu bëgg yeneen jeune xool ci loolu. Mhm. inspiré wu ci mën koo jëmmal. Mhm. loolu moo tax tey boo jëlee par exemple GIE jàpp ci euh, ay 2019 yooyu dama toog ba ci yàgg ma ne euh, Sénégal am na am na ñoo xam ne ay ndaw lañ ak ay jigéen. Mhm. yoo xam ni mën soxla nañ ndimbal ci maanaam seen i projet yooyu. te diaspora bi am na ñu ci yàlla dénk tuuti mais koo ci laaj daf naan la. Euh, Sénégal wóoluwuma leen. Mhm. dañu am na ñu bari wóoluwuma leen donc du Sénégalais yëpp. Mhm. mais dañu naan la foofu daal boo joxee sa xaalis dañ koy lekk. waaw ça c'est vrai tabax loo dañ koy mhm. triandé. na ci voilà. soo fa investiré dañ koy këpp dem ak ñoom parce que am na ñu baree bari seen jikko rafetul ci côté boobu. donc ci laa gis ni. pourquoi pas aussi parce que bu ñu waxee loolu rek réew mi du dem. du dem il faut sénégalais ci diaspora participer. waaw mhm. ah, ci la créer benn plateforme bu tudd jàpp ci numérique. mu mhm. ne ku yor sa projet da ngay ñëw dugal ko foofu. Mhm. képp ku ci bëgg a bokk nga bokk ci mën a joxe ñu koy suivre en ligne. comme doon benn intermédiaire. plateforme de financement pour les jeunes et les femmes. surtout. donc voilà euh, loolu tax na nag euh, l'idée a été très bonne on a il y a des projets qui à ça. alors euh, on a remporté parce que dafa am benn volet numérique sànq doon na xam na ci licence. ok boo xam ni on a pensé à la plateforme et tout ça ak nu muy doxee comme plateforme de levée de fonds la mais c'est pour financer des projets. Alors, on a remporté le Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique mm -hmm. ci mai bi mhm. weesu mm je pense que moom mooy photo bi nga ànd ak euh, le président ouais, de la République ouais, de la République ouais, euh, Macky, Macky Sall mhm. euh, et aussi parce que c'est plus spécial femme mhm. donc euh, lépp lu may def tamit dama ci ànd ak sama soxna moom elle est très très très active ci lépp loo xam ni mooy entrepreneuriat économiste la alors euh, donc moo tax spécial femme la parce qu'on accompagne aussi les femmes les okay. GIE et tout ça alors euh, c'est ça yeneen yi nag euh, c'est au niveau du Canada foofu mhm. tamit remporté nañ fa ñaari prix mhm. euh, non ñetti prix euh, remporté nañ fa premier prix local ou, ou, ou de oser mm-hmm. euh, entreprendre mm-hmm. mooy euh, image yi voilà c'est ça mm-hmm. mooy image yooyu euh, remporté nañ fa tamit premier deuxième prix régional pour oser entreprendre parce que foofu dañ dafa bëri ay activités yu ñu fay def yu jëriñ réew mi macha allah ak aussi Euh, prix euh, du de de entreprendre ici c'est un prix très prestigieux dañu lay jox à peu près benn somme bu xaw a takku. mais duñ ko jox ñëpp. Mhm. <laughs> donc euh, loolu suñuy résultat yi ñu def foofu la. macha allah voilà ok bon on va rester ici au Sénégal parce que comme yaa ngi Sénégal jamono bi. Mhm. Euh, te quand parle de Sénégal dañuy wax ci dundu gu cher gi. Mhm. maa ngi seetaan sa benn interview nga ni. dund gi cherul mhm. sénégalais yi ne yow mii xanaa da nga dof wala li nga nekk peut-être Canada moo tax nga ni dund gi cherul mhm. mais euh, problème majeur des sénégalais mhm. mooy ne président Diomaye ak gouvernement am wàññi dund gi mais est-ce que wàññi dund gi rek moom la ñuy xaar ci ki nga xamante ni moo di son excellence monsieur le président de la république oui euh, no non d'ailleurs sax loolu waxtaan nañ ci avant ñuy commencer interview bi te am nga ci yow xalaat yu rafet rafet euh, loolu dama ciy d'accord à cent pour cent dañu wàññi dund d'ailleurs sax man développé naa ko te sénégalais yi fii ak ay quelques mois euh, dinañ xam lan laa bëgg a wax foofu man dama ni wàññi dund gi priorité la ci sénégalais yi mais nañ ko xool ci beneen angle xam nga dundu moo war a wàññi boppam naturellement. dëgg la euh, am na yenn produit yoo xam ni lu mel ni par exemple saison màng bu ñëwee. Mhm. mas ngaa dajeeg sénégalais buñ la màng dafa cher. déedéet xam nga lu waral lool. Mhm. dafa bari dafa bari. dund boo koy wàññi parce que loolu maa koy développé toujours. Mhm. que levier bi état bi am pour wàññi dund benn dong la boo jëlee exemple euh, benn boo boo jëlee benn benn canette. Mhm. wala benn butéelu boisson. Mhm. butéelu boisson bi supposons que man ci secteur privé bi laa nekk damay jëlee bitim réew boisson di ko indi. léegi man boisson boobu damaa dem benn réew ma jëlee ko fa dugal ko ci conteneur. Mhm. damay fay conteneur bi. Mhm. bu ma paree damay defaruma ko puisque moo moo ko ko jëndi damay jubale mhm. ci alalu réew mi parce que même boo ko moomee tamit lu waroon des ci réew mi la dama ko tibb yóbbu. dem jox ko koo xam ni daf may jaay boisson bi. kooku fay ci ay salaire maanaam maa ngi dundal beneen doomu réew. Mhm. beneen baykat parce que bu dee fruit la boisson bi wala dara am na ku bay fruit boobu. dëgg la am na ku ko sol ci biteel bi. Mhm. am na ku ko àmbale mhm. am na ku ko ci def étiquette bi. maanaam ñooñu laa jox ñooñu laa distribuer sama xaalis. sa xaalis ba mu leen distribuer ba pare ñëw ba ci port bi douane bi ni ma ah sa boisson bii de ñun lépp lu dugg ci réew mi. dañ koy taxé. Mhm. maanaam dafa am as lëf suñ ciy teg pour nga muy otoog loo mën a dugal ci réew mi mhm. euh, loolu mooy tax dañ koy def ci gafak ak réew mi bokk na ci les taxes mhm. surtout état yëpp daanaka taxe li ñuy dundee dañ koy def ci gafak gi pour mën cee defar ay làmp defar ci ay tali defar ci yu ni mel mën a développer réew mi donc man su ma agsee foofu réew mu nekk ak li nga ciy teg waaw am na réew yoo xam ne dañoo gën a ëppalante cherante ci côté boobu état bi daal ni ma ah man de teg naa ci supposons ma jënd valeur cinq cent millions état bi ni la man teg naa ci cent million mhm. moom nga may fay ma dugg sama gafar. ma calculer loolu lépp dama koy teg ci prix bi may jaayee butéelu boisson boobu. donc état bi bu bëggee wàññi sama butéelu boisson boobu day waxtaan ak. day danaan ma léegi boo ñëwee ba ci port bi. Mhm. parce foofu rek la ci amee impact. Mhm. may maanaam na nañ la d'impôt may même de de taxe doo ko fayee wala wàññi nañ ko ba mu tuuti. Mhm. donc au lieu mu tekki deux cent millions mun la baal naa la ko. waaye nag da koy wàññi ci njëg gi nga wàññi ko ci njëg gi wàññi boobu du wàññi bu baax parce que du yàgg fi et loolu mooy tibb ci gafaka am di jiima dundal nit loolu lay tekki mhm. donc wàññi boo gis gisee périodique. maanaam du du wàññi boo xamante ni c'est conjoncturel. Mhm. du yàgg du yàgg jëmul kër. Mhm. moo tax ku wàññi da nga yokkaat wàññi yokkaat noonu rek lañ fi nar dundee. ok allez-y allez-y. Mhm. wàññi bi nga xam ni moo naturel maintenant. donc dama jox naa la exemple ci mango ak am na produit yu bëri ma gis Sénégalais di jàmbat ay xorom ak. musuma gis duñ ko jàmbat jàmbat. am na ñu bëri dañoo dañoo foog ne ah xorom moom c'est naturellement dafa yomb. dafa kii mais parce que dafa bëri. dañ koo am rek. mais bu ñu ko amul woon am na dëkk yoo xam ni xorom. dafa cher. <laughs> ni fa ceeb chéré la chéré bari na ci réew boobu amuñu xorom. Mhm. donc lépp looy jënd bitim réew daf dafay cher parce que li ñu ciy teg la transport beeg leneen ak leneen plus xaalis sa alalu réew mi ngay génnee. ok mais mais tey est-ce que loolu rek la ñuy ci ci loolu la ñuy xaar le président Diomaye euh, parce que y a beaucoup de yoo xamante ni euh, euh, war nañ ko mën a waxtaanee. Mhm. parce que on parle de corruption. Mhm. mais est-ce que tey état mën na tey chaque fépp foo xamante ni homme de tenue nga fay taxaw mu def fa caméra de surveillance pour mën a mhm. surveiller ñi nga xamante ni ñoom la ñoom la ñuy ëpp lu ñuy tudd ci wàllu corruption. chauffeur du yor. Euh, du yor permis wala chauffeur du yor carte grise jàpp nga ko au lieu que nga mhm. bindal ko mu dem fay mu jox la benn 2000 ou benn mil mhm. nga yóbbu ko euh, sa kër est ce que tamit loolu bokkul ci li nga xamante ni euh, travail bu mag la bu ñuy xaar le président Diomaye Faye. waa ben oui en fait réew mi ku ko bëgg a soppi corruption moom mooy la base am réew. su fekkente ni bi corruption bi xeexuñu ko amul loo mën a réussir. Mhm. kenn ci seen ci seen kër gi. ko mhm. mel ni Fadel Fadel ma expliquer parce que moom day def social lu bëri. Mhm. d'ailleurs sax loolu dañ ciy jaajëfal Dakar Buzz bu baax. merci merci beaucoup gis nañ taxawaay bi. Mhm. da wax ni même ci hôpitaux yi dafa am ay genre problème yu mel noonu. mais bi mu waxee ba pare man dama jàng ci ni corruption bi la. moom dugg ci hôpitaux yi moo dugg ci tali bi. moo dugg ci école yi moo dugg ci kër yi moo dugg ci marché bi. moo dugg ci mbedd mi en général. donc pour xeex ko tamit du yombul parce que comme ni nga ko waxee mënoo def foo taxaw rek teg fa benn nit bu koy saytu. Mhm. parce que nit boobu ci boppam moom ci boppam bu fekkee la personne est corrompue mooy yow fajoo dara. fajoo dara mais nag man xaw naa cee am tuuti solution. mooy la waaw début de solution la mooy bu ñu bëggee xeex guerre faw ñu digitaliser plus waaw maanaam lépp loo xam ne. xam nga tey sa facture courant bi ngay fay ci mm-hmm. Woyofal bi mm-hmm. xalaatu kenn di ci teg mille francs yu mu la saaj ci parce que yaa koy fayal sa bopp ça ngay dugal nga fay mm-hmm. pourtant amaana boo doon rang wala dara doo jot facture du du dem ni mu demee nii nga dem nit ne la sa facture bi 5000 la fekk 4000 la teg ki loolu wala nga dem bëgg rang gis ni fii da nga fiy yàgg nga neexal pour gaaw a jàll mais comme ku nekk am nga possibilité toog defee ko sa kër doo ci fayante doo ci rawante doo ci def transport doo ci def transport doo ci def leneen donc mhm. loolu day dindi bu baax corruption mhm. leneen li nga xam ne aussi parce que toujours te dans le cadre de digitaliser maanaam fexe ba parce que boo digitaliser dangay fexe ba réduire lépp loo xam ne nit da ciy am yoon directement da ciy am loxo mhm. da ci loxoom da ciy dugg mooy ci tali bi tey tali bi man dama jàpp ne police rôlam du encaisser ay xaalis C'est quoi son rôle c'est de maintenir l'ordre, de veiller à l'ordre. Mm-hmm. sécurité wu nit ñi loolu mooy rôle mais nga taxaw même bu fekkoon amende dafay am on ne devrait pas à la police ou aux policiers parce que tey jii mënoon nañu digitaliser ba nga xam ni wax ko sénégalais yépp ñu dégg ko. Mm-hmm. que bu ñu la jàppee ci tali bi benn application ngay dugg fay. mu jox la ticket numérique nga xam ne yàgg policier bi waru leen seq joxalante amul benn ci benn réew. Canada gi ma jógee xamuñu luy jox police xaalis. Mhm. parce que bu policier bi bu même bu bindee da nga koy cour municipal nga koy fayee maanaam ci mairie ba nga koy fayee. parce que yàgg policier bi sequ leen loolu. donc yooyu yëpp boo ko gisee ba pare ñoom digitalisé nañ même bu ñu fayewul ak seen téléphone sax. Mhm. mën nga ko fay en ligne sa contravention yëpp. mooy mën nga. më mën nga policier bi ci boppam moom équipé nañ ko de telle sorte que reçu bu mu joxe à la base ñoom xam nañ ñaata ticket lañ joxe parce que yorut ay ticket yu ñu bind c'est son ordinateur tableau de bord otoom mooy définir loolu tam day garder ces données. mais est loolu dina yomb ci Sénégal parce que euh, ñi nga xamante ni euh, seen jàng soriwul ni man dañ fee bari. waaw ñi nga xam seen jàng soriwul ni yow dañ fee bëri <laughs> mais yow sa jàng sori na mais bon ni ñun ñun ñëpp. <laughs> parce que c'est relatif. Mhm. mais li ma bëgg a wax foofu mooy yow tey yaa ngi am na ñu ma waxoon loolu parce que ñun amoon nañu idée bu yàgg am na benn plateforme bu siiw buy transférer xaalis fii. Mhm. mais sénégalais amoon na ñu bari bari ku ku mel ni man amoon naa genre idée yooyu mais ñu bëri dañ ma waxoon ne non Sénégal ñu jàng bari wuñ affaire yooyu noonu mais bi ma gisee sax ñu dem ba am doole dama koy xaw a rëcc tuuti. Mhm. parce que eh, maire yeeg paa yeeg ñooñu. waaw koo ci kii koo ci bëgg a yónnee xaalis xam na nuñ koy jotee waaw vraiment xam na nuñ koy <laughs> est ce que lu lum lim doon wàllum xaalis mi maanaam bu fekkee xaalis nga leen di yóbbu mais bu fekkee ni par exemple dafa war a man dañ ma jàpp ci tali bi man Abdou oh. Saliou ma doon koo xamante ni jànguma naka laay def ba fay kii euh, fay fay fay sama sama jàpp bi ñu ma jàpp oh. bu dee wàllum xaalis fu mu toll nii moom xaalis moom xale bi ju doogul sax xam na wàllum ah, xaalis mais bu leen ko jaralee xam nga bu fekkee parce que lépp question d' argent la. dëgg la xam nga bu fekkee tey jii bu fekkee ticket bi 1000 francs la. Mhm. boo ko fay ci application 1000 francs la te amaana boo doon ci deux 2000 ngay fay wala 3000. di nga mhm. di nga débrouillé wu te d' sax man dama jàpp ni Sénégal fi ñu toll nii ak problème boobu ci ci. li nga xam ne mooy mooy euh, enseignement professionnel mhm. dañoo yokk war yokk benn module boo xam ne aide euh, technologique lay tudd wala aide numérique. maanaam di ko jàngal xale yi di leen ci jox ay diplôme nga xam ni yow tey lu baree bari par exemple euh, certificat de naissance. Mhm. Euh, nu mu tuddati casier judiciaire toutes ces choses toutes ces choses là dañ ko war a digitaliser. Mhm. donc loolu tey bu ñu ko defoon. mën nga gis benn koo xam ne ku mel ni sama maam. Mhm. bu soxla extrait de naissance wala mu bëgg a fay dara. mën na ñëw ci yow fay la parce que loolu dañuy créer sax emploi mhm. ñu ne ah ñii de mën nga sax am sa bureau bu ndaw boo toogee kenn bu bëggee def dara ak numérique bi mhm. mu mu ñëw foofu defee ko fa. ok am ñu a mhm. euh, ñu ñëw ci l'emploi des jeunes. parce que mhm. euh, ndaw ñu ci bari dañoo jàpp ni euh, tey jii ak le nouveau président Diomaye Faye. Mhm. maanaam seen coono day jeex. bu ñu bëggee liggéey dañuy liggéey bu ñu bëggee lekk dañuy lekk bu ñu bëggee naan dañuy naan. mais est-ce que ki nga xamante ni jàngul amul formation kooku tey teg ko fenn muy liggéey. est-ce que dina yomb. waaw loo du yomb du mës a yomb loolu moom euh, am na lu luy olof yi di wax euh, géntu muus am nga muus dafa xaw a nuroog gaynde mm-hmm. boo boo léeg-léeg buy gént day jaawale boppam ak gaynde après bu yeewoo door a xam ni muus la waaw xam donc géntu muus baaxul le mm-hmm. rêve du chat nit da ngay xool li jaadu ak li yënu maanaa mm-hmm. donc côté formation man foofu dama fay wax tous les jours dama ne Macky Sall bi muy falu en 2012 euh, xale yi nga xam ni ñoo ñoom ñi amoon ñi am na ay xale yoo xam ñi amoon huit ans. Mhm. huit ans laa wax. Mhm. bi muy follee ko ñaata at lañu am. ñu ngi ñu ngi ci ñu ngi ci bon ñu ngi ci follee en deux mille en deux mille vingt quatre. waaw bon ñu ngi ci douze ans deux mille douze ak léegi. yaakaar naa douze ans nga dolli ci huit ans mu nekk euh, vingt mhm. vingt ans ñoo ñoo ko fool li waay lan nga bëgg expliquer foofu li mu bëggee expliquer foofu mooy ñooñu boo leen bëggee jëriñ hmm. da leen di teel a jàngal dëkk ñooñu ñoo toj bus yi hmm. <laughs> ñooñu ñoo ñoo ak leneen ak yu bare bari hmm. maanaam ñooñu dañ leen daf booleew daf leen fàtte ci programme ci programme mais ñoo ñoo ko folli huit ans amoon xeeboon na leen lool waaye foofu ca càppaandaw ga ñooñu ñoo fal jomaay ñi ci wala boog ñi ci gën a bëri ci ñoom mhm. donc li jiitu d'abord ci jeunes yi mhm. mooy former leen wutal leen métier parce que jàng ak métier bokkul mën nga jàng formation professionnelle mhm. euh, te te ba pour am métier te jàngo jàng mu sori laajul njàng mu sori dëgg la donc loolu dañ ciy xaar bu baax la ministre responsable de l'enseignement professionnel mu réformer côté boobu même l'enseignement normal dañ dañ ko war a rendre plus professionnel mais fexe ba soo amee bag rek nga spécialisé wu. bu fekkee mécanique nga war a bëgg a jàng. def mhm. jàngi ko bu fekkee maçonnerie. parce que LMD système bi mooy licence master ba doctorat. Mhm. loolu ku am xaalis moo ko war a def loolu système riche la. Mhm. maanaam yow amoo loo def ci àdduna lu dul dem jàngi mais yow am nga da nga bëgg njaboot peut-être seen waa kër seen loxo jotul sa ginnaaw. donc dañ laa war a jox métier. Sénégal la nga gis ko am doctorat te puso mënu koo ñaw mënu mënu koo nas. mënu koo nas. loolu loolu ëpp na loolu amul loolu gâchis la yàq la. yàq la xam nga. Mhm. donc professionnel bi dañ ko war a fe carrément ci enseignement normal. bi mhm. mu jeex. Mhm. léegi nag diggante boobu day metti nag day yàgg parce que da nga formé mais boo boo fekkee da nga bëgg a promettre aussi le paradis il faut ñu dox wuti ko maanaam nit ñi conscient que liggéey bi Sénégal pour ñu dem fi ñu bëgg a dem. non seulement dinañu entreprendre parce que c'est très important. Mhm. ñëpp état bi mënul jël ñëpp. mën ci jël ñëpp dix huit millions. voire vingt millions sax. Mhm. xam nga mais état bi fonction publique bi je pense que c'est cent mille si je me si je me trompe pas. Mhm. c'est cent mille emplois. sur dix huit millions c'est très peu. donc monsieur jaw euh, si je comprends bien yéen waa PASTEF xam ngeen ni euh, liggéey bu énorme moo leen di xaar. waaw loolu loolu loolu yàgg nañ koo xam d'ailleurs sax le prési le le le le le premier ministre monsieur Ousmane Sonko wax na ko ba tàyyi. Mm-hmm. j'espère que dégg nañ ko ak nopp bu baax bi wax na ba tàyyi du yomb. Mm-hmm. pour rëcc ci moom ci ci ci nooteel ak lu ni mel ak defar réew mi ba nga xam ne mu ñoŋ. ba ñun bu ñëwee duñ fi am gàcce ñun léeg-léeg dañuy ñëw am gàcce. mais est-ce que est-ce que comment est-ce que commencé wul parce que maa ngi gis ni euh, Charles Michel euh, euh, président Diomaye. Mhm. gisante nañ sénégalais yu bari di ci wax naan ki nga xamante ni moo fi ñëwoon au mhm. temps de Macky Sall. Mhm. sénégalais yi di di di waa waa waa waa Jamra ak ñi nga xamante ni ñoo di sàmm jikko yi. ak Ousmane Sonko même gaa yaa ngi koy wax ni dañ doon bundu xatal Macky Sall naan dafa bëgg a daganal li nga xamante ni moo di borom. ñaari tur yi. Mhm. te Charles Michel moom moom moom fi ñëwaat. est-ce que mhm. tamit du da ngeen a vendre euh, du rêve aux Sénégalais maanaam seen projet bi ngeen di wax. Euh, non du du du xam nga réew dafa am nu muy doxee. Mhm. état du nit. dëgg la voilà loolu ñun dañoo bokk ci ñu mës am position boobu que. réew continuité la. mënoo ñëw fàllu rek nga ni yow dootuma wax ak yow yow diw dama lay tëj. yow diw. dama lay génne réew mi mhm. lii nii dama koy dagg gis nañ démb le président dalal na ñi nga xam ne ñooy patronat bi mhm. am na ñoo xam ne ñu ngi naan lu tax mu leen di dalal mais ñooñ ñooy dugal ceeb bi ci réew mi ak diw gi mhm. bu leen dalalul ba lijjanti situation yi lu muy def da dana noonu yéen dalalu men jàll leen fële sénégalais yi nañ débrouillé wu je bu defee loolu ñu fekk ko ci pale bi parce que réew dafa am continuité donc yooyu ñuy wax yooyu yëpp dafa bokk ci état ku ne lay jëfalanteel. Mhm. loolu dañ ko war a xam dañ ko war a teel a xam état dina jëflantee sàcc. Mhm. état dina jëflante ak borom daraja. Mhm. état dina jëflante ak euh, raykatu nit. état dana jëflante ku ne. maanaam ci gàttal ci donc bu ñuy jaawalee état ak ak li nga xam ni mooy jëmmi le président Diomaye Faye donc c'est très important ak lu mu mënti def. ci tekk ak ci dal la ko mën a def mhm. ak ci structuré ak méthode mais lépp lum mu rek réew mi dina ñoo koy yëgal seen bopp ba pare ñoom duñ ko comprendre noonu ok mhm. kon tu trouves normal euh, li sénégalais yi doon doon doon xase Macky Sall euh, tey bu ko sénégalais yi commencé xase ki mhm. nga xamante ni moo di le euh, président Diomaye naka nga gisee ñaari ñaari jëmm yooyu te mu nekk ñaari nit ñu wutee lu président Macky Sall ak le président Diomaye Faye waaw day dëggal ba léegi sama wax ji mooy nit ki ak état bi bokkuñu. bokkuñu. Mhm. président mën nga koo xas ci benn côté mais am na loo xam ne boo xasee état bi nga ko xas. Mhm. parce que état amul choix ci yenn affaires yi. yenn affaires voilà donc da nga da nga am ak euh, état da ngay gis ay état yoo xam ñaari président dañuy am problème. mais mhm. dañuy dañuy toog. dëgg la parce que état yi moo leen moo leen moo leen. moo leen liggéey moo leen taaj. du ñoom. alors loolu nañ ci def attention bu baax maanaam suñuy ngëm-ngëm moo tax boo déggee ñu naan sax laïcité loolu la. maanaam suñuy gëm-gëm suñuy bëgg-bëgg ak suñuy yittee bopp des fois ça ne définit absolument rien di tout ci sa kër la yam mhm. leneen li leneen la may maanaam bu ñu dajee ci penc mi yooyu yëpp yu bare bari dañ koy teg fee ñu wax li ñu boolee foofu ok euh, c'est très important est-ce que dina yomb ci euh, gouvernement bi euh, vu que waa APR ñoo yor majorité à l'Assemblée nationale mhm. pour yi ñu bëgg a tëral ak yi ñu bëgg def ci réew mi pour mu pour mu pour ñu mën ko def waaw euh, ben day dina yomb man ci loolu laa jàpp. lu tax euh, waaw dina yomb parce que bu naan majorité parce que bu ñu naan waa APR aussi majorité benn kii mu ngi fii parce que bu ñu naan waa APR sax bennoo moo tax ñuy wax. Mhm. Euh, PDS mu ngi fii taxawu Sénégal mu ngi fii yàlla a les indépendants mhm. malgré que bëri wuñ à mhm. l' assemblée nationale. maintenant fii nii Sénégal li fi xew bu fekkee politiciens yi ñoom jànguñu ci duñ ci duñ ci gaaw a jàng. mooy Sénégal li fi xew nii ci 2024 révolution la le mhm. soir du élection mhm. euh, réew mi dañu soxla changement un changement profond donc changement boobu nag tax na euh, ñu gis ni benn nit ñëw na taxaw à l'élection présidentielle mhm. euh, journée bi rek ñu bureau yu tëj rek ñu ni gagné na xam nga kenn mësu ko fee def opposant donc noonu tamit lañ bëggee la Sénégalais yu bëgg yu bëree bëri jàll à l'Assemblée nationale parce que ku ni régime bu bees. Mhm. ni ay ay coppite yu bees. am na ci yoo xam ne assemblée bi dañ ciy jouer seen rôle parce que nit ñoo gën a yàkkamti. Mhm. alors nii nii blocage bu amee wala lépp loo ci mënti am ñoo ko askan bi la donc jàpp naa ne bu fekkee ñoom dañuy déglu askan bi. Mhm. di xool seen i intérêt wala seen i xeex politique yitteelu leen askan bi leen yu yitteel euh, dañoo war a li xale yi di wax dëgg bal waaw euh, loolu loolu moo tax ma jàpp ni peut-être loolu loolu loolu du ci am blocage du ci am et puis même bu ci amee aussi euh, gis naa rek temps yi ñuy wax ci ay motion de censure ak yu ni mel mooy woo gouvernement bi daal ni leen yéen vous êtes incompétent daal di voté daal di dàq gouvernement bi daal di leen yi wàccee mm-hmm. Ah, même bu ñu leen wàccee sax mën nañu former waat gouvernement loolu moom sàttu réew mi terewu ko xam nga mais aussi Diomaye am na possibilité au-delà de du mois de septembre de dissoudre aussi l'Assemblée nationale parce que la constitution dafa wax ni euh, deux ans d'exercice un président de la République du Sénégal a la possibilité de dissoudre l'Assemblée donc mu mel ni même député bu ñu ko amee pouvoir bi tey suba duñ ko am. duñ ko am donc loolu day jouer ci benn genre équilibre ma jàpp ni ku nekk am nga intérêt Diomaye n'a pas intérêt le président de la République monsieur Diomaye Diakhar Faye n'a pas intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale parce que c'est coûteux. dañuy mm-hmm. organiser waat élection à la coléale je pense dans les 90 jours qui suivent. ou mm-hmm. plus tard donc. Euh, n'a pas intérêt parce que Sénégal tal nañ leneen lu fii di waxaat fii vraiment dañu bëgg ñu jublu ci liggéey. député yi tamit amuñu ci intérêt parce que ñoo askan bi dañ leen jéppi mm-hmm. voilà voilà loolu loolu am na am na solo bu euh, bu baax a baax mm. euh, mais question bi nga xamante ni euh, moom la ñuy daal di tëjee waxtaan bi parce mm. que yow sunu waxtaan il faut que ñu def ko lu espécial parce mm-hmm. que ruq yeeg ruq-ruqaan yi ñu war a dugg duggaguñ fa mm. voilà sama caméraman nee na nga defar sa position tuuti du ci mën a ñàkk ci Omar mm-hmm. taalibe Serigne Babacar Sy bi mm-hmm. yàlla sa jàmm yàgg le meilleur des caméramans <laughs> mais tey ci liggéey bi nga xamante ni moom mooy xaar le président Bassirou Diomaye mm. ak ki nga xamante ni moo di son premier ministre monsieur Ousmane Sonko mm-hmm. euh, tey eh, jàppoo ni euh, maanaam fi leen sénégal yi doon xaar. Mm-hmm. Euh, parce que ñu ci bari ñu ngi dégg maa ngi dégg ñi naan six mois lañ leen may. Mm. est-ce que ñoom li ñu bëgg a def. Mm. mën nañ ko def ci dix ans. ci réew moo xamante ni jikko yi changé wuñu ci réew moo xamante ni par exemple nit ñi dañu bëgg lépp toog fi ñu toog mu leen fay fekk. Mm, waaw man dama jàpp ni liggéey bu jafe lay doon. Mm-hmm. parce que man bi ma ñëwee Sénégal ba léegi pour joxe exemple bu simple man bi ma ñëwee dama ne woon man du dox ci tali bi parce que tali bi pour oto yi la. Mm-hmm. doon naqarlu tamit sereet yi ñu koy bokkal. Mm-hmm. parce que sereet yi fayuñu assurance te dafa am ñu ñuy contraindre ñuy fay assurance par mois ou annuellement. Euh, tali bi lépp lu ciy daw dafa war a am assurance. Mhm. pour koo yàqal ak bu ñu la yàqalee. ak wala koo gaañ wala bu ñu la gaañ. Mhm. waaye loolu gisuma ko fi dama gis sareet dañuy daw ci kaw tali bi oto yi dañuy daw exemple la ba léegi. Mhm. Euh, ak nit ñi dañuy dox ci kaw tali bi ma ne man sama kaaraangeeg bopp bugguma dox ci kaw tali bi may moytu gi moytu ba bis ñëw may commencé di dox ci kaw tali bi ñetti fan laa fi am di dox ci kaw tali bi. <laughs> donc ma ma gis ni. dama mhm. amul fu ma jaar ci trottoir bi. Mhm. en fait ma commencé nag di gisee neneen. parce que ñu ma doon gis naan ñii wër ñoo xanaa dañoo dof ma jàpp ni man bokk naa ci ñoom parce que ñooñu ci la comprendre que dañoo amul fu ñu jaar. loolu am réew nag bu ñu bëggee mu dox ñaar yi moo ko mën mooy nit ñi d'accord ci lenn dëkkandoo ci defandoo ko mun pour réew mi ñoŋ. Mhm. ku ne di ci gis sa bopp. loolu bu mënul ne itam ñu forcer leen ko am réew tamit bu dee ku nekk lu lu waay neex def. Mhm. du yomb moo tax man dama jàpp ne sax civisme dañ cee war a gën a dañ koo sax war a militariser. waaw maanaam boo fi defee loo wërta def. Mhm. soo lalee fenn ñu ton ni ko sànni. Mhm. nga jaa nga def fi loo wërta def ñu teg daan yi lool parce que loolu mooy justice. sénégalais yu bëri dañuy jàpp naan ñu bëri naan réewu justice. mais ñu bëri justice attanuñ justice. parce que ñoom ci seen bopp ils sont pas justes waaw juste. ñàkk juste mooy fekk trottoir boo xam ne nit ñi dañ fay jaar pour mooy oto yi ci tali bi nga lal fa loolu ci loolu injustice la ci ñeneen ñi mhm. ak yeneen ak yeneen waaw mais loolu sénégalais tey boo ko defee euh, au de de de xalifa euh, Sall ma koy nuyu euh, di ko ñaanal jàmm euh, tey fële nga xamante ni moo nekk ca Petersen ou bien mhm. Sandaga mhm. doon na jéem a def loolu mais gars yi dañuy peut-être Khalifa Sall bëggutoon ñi fa nekk tekki wala bëggutoon ñi fa nekk am dara mhm. loolu moo dal fay fii fi nga xamante ni moo di ca Grand Yoff ba xale yi commencé woon faa taal récemment ni mu doon loo xamante ni lu doy waar la man je peux pas concevoir ñu ni dañoo bëgga liggéey toog ci kaw tali bi nga xamante ni foofu la oto bi war a jaar tey jii leen fa jëlee ñu ne état bi bëggu bëggu leen ben écoute Euh, loolu ñëpp fekkee nañ ko mais damay wax ni rek moom laay wax ni Sénégal ki koy defar dëggantaan njaay duñ la bëgg. Mhm. bu ñëpp d'accord rek bëgg la rek am taxawaay buñ taxaw rek mooy def tu travail pas. loolu mhm. moom lu ma gëm la lu ma gëm la nag personnellement parce que Sénégal euh, su li ñu li ñuy li li ñu bañ lu bare bari mooy defar réew. Mhm. mooy maanaam ordre justice. set ak yooyu yëpp ci defar réew la bokk parce que da am ay gan mhm. xam nga donc euh, bu fekkee yow da nga ñëw falu di wër ndoom beneen maanaam faluwaat sa sa échec fa la commencé mhm. parce que da nga leen ji ma topp ci li leen neex te ku leen topp ci leen neex réew mi du jàkk réew mi du waaw loolu moom lu ma leer la may maanaam il faut aussi à un moment donné am ko sacrifié wu ne mën mii élection présidentielle beneen bu fi ñëwee benn voix bu ma ko amee day ëpp ci man. waaw mhm. ah, loolu foofu foofu lañ toll. ok euh, mën nañ xaar yéen ñi nga xamante ni yéen a porté woon combat bi. Mhm. Euh, euh, suba wala gannaaw suba ngeen porté waat combat bi pour wax non à la président. au président Bassirou Diomaye Faye parce mm. que gis ngeen ni muy doxalee neexu leen mm. est-ce que combat bi da ngeen ko porté woon juste parce que y'avait Ousmane Sonko projet bi mu leen jaay la wala da ngeen di porte combat bi pour toujours maanaam bu Sonko deful lu jaadu ngeen génn comme ni ngeen ko doon mm. defee au temps de Macky Sall mm-hmm. wax ak Sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko mii du lii lañ doon xaar ci moom mm-hmm. daf ñoo nax wala Bassirou Diomaye Faye daf ñoo nax combat bi foofu ngeen koy yóbbu ba léegi wala da ngeen di pause combat nga pause mënul am ala kulli loolu laay wax comme mook justice ñoo erreur commencement la. Mhm. mais li ma bëgg a wax foofu mooy interview bi da du koy dëggal dafa am lu muy dëggal. Mhm. est-ce que ba mu toogee fii ba léegi gis nga mu jël guitare gu rëy yor ko. Mhm. tagg nit. wala mu am kenn koo xam ni maa ngi ji ma wut lu ko neex. li ma gëm ak dëgg moom laa jàpp ne moom laay wax. d'habitude li genre interview li ñu koy gis sax ñu baree bari bu ñu ma dégloo ma wax ba pare danañ man sax fan laa fa. parce que amul kenn koo xam ne gitaaral naa ko su ma naan gitaar mooy comme ni ñu ko faral di defee xam son excellence président lii nii. Mhm. moo moo wax dëgg moo rafet moo kii ñun nekkuñu ci yooyu moo tax ñun lu question boobu dafay dafay reelu ci ñun <laughs> que ñun lépp loo xam ne dafay. avancé loo dëkk bi. dañ mhm. teg ko ci dëgg te mu doon luñ gëm. Mhm. parce que yàlla nañu yàlla musal ci nit koo xam ne du wax. lu mu gëmul dëgg la. Mhm. c'est très important. Euh, voilà euh, monsieur jaw lan mooy doon euh, kàddu gu mujj gi ak lan ngay tàggatoo ñi nga xamante ni ñoo doon seetaan a travers Dakar ba si sa mbokk yi nga xamante ni ñoo nekk ci diwaanu ak kanada lan nga leen wax ak lan nga bëggoon a wax loo xamante ni joxuma la temps pour nga pour nga wax ci ak man. waaw ah mais damay bu baax a baax. macha invitation bi. Mm-hmm. Euh, di ñëw fekk la nga doon jeune. Mm-hmm. comme man. Mm-hmm. Ah, di di di ñu bokk. ñu bokk ñu bokk classe. yàlla di dox ba tey yàlla indi la fii. ñu yóbbu keneen fee muy muy wane ni lépp ja kii rek moo am solo maanaam sabablu. aussi ak ak dem wuti ji xam-xam. Ah, et ñu leen di encouragé. comme yéen jeunes yi. nekk ci ay ay structure ñu war ko gën a dooleel mhm. parce que emploi nga mhm. te ci bilan état nga war a dugg keneen ak say moroom ñoo fi nekk mhm. maanaam yéen ku leen dooleel mooy état bi dooleel na boppam loolu sax la ñuy créer emplois état munul jox ku ne liggéey secteur privé bi lay booster mu créer emploi à son tour léegi yéen ci secteur privé bi ngeen bokk donc euh, mais damay jaajëfal waa Canada jaajëfal waa diaspora bi yëpp. Mm-hmm. di jaajëfal aussi euh, vraiment ñi mu fekk Sénégal. Mm-hmm. ñoo xam ne am na ñu bare bari ñoo xam ne vraiment dama leen jaajëfal commencé ko sama yaay Ndumbe Wade. Mm-hmm. Euh, ak sama papa Dame. Euh, di leen jaajëfal bu baax a baax mais li ma bëggoon rek daanelee foofu mooy man bu ma sañoon. la président Diomaye Diakhar fay dina taxaw bu baax a baax a baax a baax ci xëyu ndaw ñi mhm. parce que bu ma naan xëyu ndaw ñi du rek fexe ba wutal kenn fenn ñu ko fay fay cinquante mi loolu du xëy loolu am na ku ni ma dem loolu neexal la mhm. neexal mënul faj dara mhm. nit day fexe ba li ñuy dugal ci poosam mu duun duun boo xam ne dina ci mën a faj ay soxla am très important di wax ni monsieur le président ndaw ñi ñoo la fal ñoo lay folli tamit Mm-hmm. fàllu boo gis ale boo gis am na retour mm-hmm. di la ko teel a fàttali gis nañ taxawaayu ndaw ñi te jàpp nañ ni li fi nekkoon yëpp bëgg nañ mu soppee mm-hmm. te gouvernement yi fi jaar yëpp ñi ko ci réussir bariwul te xam nañ bu baax li tax gouvernement yooyu réussiruñ ko am échec waaw donc ngeen ñu bañ a reproduire les mêmes erreurs muy lépp loo xam ne clientélisme politique lay doon lépp loo xam ni par parloo lay doon lépp loo mm-hmm. xam ni gën a jege gën a yey lay doon ñu moytu ko bu baax a baax a mm-hmm. baax a baax a baax a mm-hmm. baax aider xale yi fexe leen financer ñu amal seeni activité loolu daal bëggoon naa ñu taxaw ci bu baax a baax. Mm-hmm. merci beaucoup euh, monsieur euh, Diaw un ami boo xamante ni euh, depuis Touba la ñu xamante sunu borom def ñu dajawaat bi may dégganteeg moom xaw ma woon sax moom laa doon waxal maa ngi koy wax naan ko da màgg mu naan ma <laughs> en tout cas nit ku baax la nit koo xamante ni depuis ma xam ko ba léegi xaw ma ci moom lu ñaaw mosuma koo dégg ci ci moom aussi bi muy jàng mu nekkoon élève boo xamante ni macha allah daawul nangu kenn koo xamante ni dina ko raw. Diaw ñoom Lat Sarr ñoom euh, euh, Magui Diakhaté ñoom ñëpp daal maa leen di bu baax a baax ñenn ñi maa ngi leen dégg ñenn ñi déggatuma leen en tout cas c'était un grand plaisir ma recevoir ko fii ci euh, biir loko Dakar Buzz yi en tout cas di ñaan yàlla yàlla suñu borom defal la tawféex ak sutura dolli la kattanal ba yéene bi nga am ci Sénégal suñu borom daat koy mottali di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké yàlla na yàlla guddal fanam ak bépp kilifa diine di ñaanal réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm lépp lu dëng ci kàddu yi ngeen xamante ni sama jëmm ju xeebu xamante ni mbirum sunu borom la c'était Abdou Saliou Sey ak Omar mu baaba Babacar Sy merci beaucoup.